kër daa kër daawu ñu ànd ak ñoom ba fii ñu joxaat ñu kàddu kàddu bi nag damay wax ni mënul gudd dama leen di dalal rek di leen xam ni fi ngeen nekk tey muy Ndofane dal leen fi ak jàmm te gis ngeen mbooloo mi nga xam ni moom moo fi nekk dal na xel ñuy wax ni rek ne caravane bi dafa am solo kon nag gàcce ngaalaama yéen ñi nga xam ni yéen a ko xalaat di ko def dama ne woon sànq ne yoonu murit ki ko sos xal na ko ba nga xam ni képp ku ci dugg képp ku ci wax da ngay waxal sa bopp rek mais boromam xal na ko fu mu mën a yëg donc loolu tax na da xam ni caravane bi ba mu jógee. am na solo ndax fépp fi nga xam ne fii jaar nañu fa mu nekk foo xam ne fii sëñ bi dafa jaaroon dinañ ko wone bitim réew xam ko mais itam ñi nga xam ni ñu ngi ci biir taalibe yi nekk ci biir Sénégal xam ko ndax am na jaar-jaar yu bari yoo xam ne yi xamuñu ko woon ndax tey kër gi ñu jógee nii tey yaakaar naa ne ñu bëri xamuñu woon di fi nekk mais xam nañu ko te loolu itam ñu ngi am grâce à la presse bi nga xam ni yéen yéen a am yenn a am euh, xel indi presse bi ba xam ni Sénégal nañ ko seetaan bitim réew ko seetaan beneen fànn bi mu nekk loo xam ne lii dafa moo téye li ñuy wax Sénégal parce que réew su ma ne balaa muy dox il faut mu am jàmm te yaakaar naa ne tey. ba ñu duggee Ndofane organisateurs yi nga xam ni ñoom ñoo ngànk mbir mi tey niñ ko doxalee nekk na loo xam ne ni lu rafet la luy saxal jàmm la ci biir taalibe yi ndax gis nañu ne dem nañu ci ay kilifa diine yoo xam ne yi xëy na ci yeneen tarixa la ñu mais dem nañu ziyaare leen te wax ju ñu fa wax taalibe bu ko jëfoo benn ngaa yow mënul am ci diggante nit ñi hmm. te jàmm boobu la soxla pour mën a développer Sénégal kon nag ñu ngi delluwaat ji gërëm ñëpp wax ji mënul bëri eh, li nga xam ne ni ñoom la ñu war a wax ci sëñ Touba yaakaar naa ne ñi ñëw tey dinañ ko wax ñun luñ ci man rek mooy gërëm leen di rafetlu di xam ne di wax ne ànd bu ñu ànd ak yéen ñun dañ ciy kontaan parce que loolu mooy suñu cër ndax ku gis président de la république nu mu fonke diine nu mu fonke Touba su liy jógee ñëw arrondissement Koumbal sous-préfet mën ko fekkee man dama war a fekkee mbir mi ànd ak yéen ba ba mu jeex kon nag euh, sëñ Fallou maa ngi delluwaat di leen gërëm di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billaahi ak suñ tubaab mbooloo mi asalaamualeykum wa rahmatulahi taala la barakatuhu ñu ngi leen di nuyu ci turu sëñ maam Balla Mbàkke ni ko ñëpp waxee tey moo fi sunum sëñ tubaab ndax moom la ñu ñu fi indil mu nekk koo xam ne ki sëli sëñ tubaab ci ci ci ci lépp ci ñaari bo ci ñaari wàll yëpp ba tax na dëkk bi taal bi fi nekk yëpp teew nañ taalibe yi nga xam ne ñoo wër Ndofane ndax dëkk bi euh, li ñu fi ne ak li wër Ndofane ñëpp ñoo ne ku xam tundu Ndofane da ko jële Kër Madiabel ba Maabo jëlee ko Nioro ba Kaolack lan menge fenn fu ne gentukaay Touba Fall dëkk yëpp ñoo ne gis nañ ñëpp am ñoo xam ne ci guddi gi la ñëw am ñoo xam ne ci bëccëg bi la ñëw kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Caravane bi nag wax dëgg yàlla suñu xol seet na ci bu baax. ndax dañ ko daan gis ci télévision di ko dégg ci rajo waaye mësul ñëw Ndofane kon ren bi ñu ko indee Ndofane am nañ yaakaar ci ne ah Ndofane liñ bëggoon lépp am nañ ko ngir liggéey Sëñ Tuubaa képp ku la ci boole rek ku la yéene jàmm la kon bu fekkente ne karaayam euh, bi joyante nañ ko jaar ndoofaan di jéem a gëstu jaar-jaaru Sëñ Tuubaa yi wax diggaal loolu suñu xol seet ci baax baax dëkk bii sëñ Tuubaa def fi jaar daa fi ñëw di fi romb gërëm ko sëñ Baabu Guèye daa fi ñëw euh, di fi def def def am fi ay xarit yoo xam ndax sëñ Baabu moom sëñ Baabu Cissé moom nga xam ne mi mooy ko sëñ Baabu Guèye ñaari doom doom bi ci mujj faatu daaw la faatu ci loolu bi kon xam nga bon sëñ Tuubaa daana fi ñëw kon ñu leen di wax ne bisimilah sëñ Moon Mbàkke si ñëw nga fi nga war a ñëw yow fi nga dëkk xam nañ la bu baax ndax ñu ñii di wax ak yow ñoo dëkk ca Koungheul dëkk bi nga xam tubaab yi juddoo fa lañ nekk ba ni ñu toll nii kon boo ñu fekkee fii am nga fekk nga fi say taalibe kon ñu ngi lay wax ne bisimila ak ñu ñëpp ndoofaan tàll leen loxo fas yéene taataan li ngeen fi wax lépp insha allahu rabbi danañ danañ ko déglu. aqal bañ koo déglu ak xol di la wan ne suñ xol sedd na guy guy guy guy di ñaan nag ngeen jotal ñu sunu cant fa ngeen bàyyeekoo ci kilifa ya seen Sidi Moxtaar ñu ngi ñaan yàlla yàlla sunu boo yàggal ko fi lool ndax moom kat kër ba mu toogee ne lépp nañ ko def benn booba ak léegi ci loolu ngeen di dox guddi ak bëccëg ba tax na bi nga ñëwee fii fi nga jëkk jaar ni ko euh, euh, préfet waxee léegi kër kër yi ngeen jaar nekkuñ ay murit waaye tatagal ja dalal nañ leen tatagal leen ngeen saafante ak ñoom kon loolu moo lay wan li sëriñ bi soxla woon yéen a ngi ci te am na réussite lëm bëggoon am na ko yàlla suñu borom ma nag du juum bi ko sëriñ bi bëggee man day xëy na du ma mag waaye laq naa juróom benn fukkat waaye ba moo juróo léegi maa ngi door a mës a gis Sénégal ànd ak màkk julli kon benn gisuñ Sidi Moxtaar bëggoon yàlla suñu borom ba def ni ko ba lépp ñëpp ñëpp xam ko loolu yàlla yàlla suñu borom ba yokk mën-mënam lim bëgg ci taalib Sëriñ Tuubaa yàlla defal ko ko saa mu bàtt na di leen wax ne ñëw ngeen ci kër goo xam ne kër Sëriñ Basiru kër Sëriñ Basiru mooy kër Sëriñ Tuubaa Sëriñ nag kenn lu seen Tuubaa ndax Sëriñ Basiru moom kenn kott kese moo amul suñu tubaab fukk at ak juróom njaareem amul keneen kon bu ngeen ñëw yi kër goo xam ne moo ko rëdd ci tànk boppam fii ñu def baas bii jàkk ma jàkk fi ne ko xam ne sëñ Basiru ko rëdd ba mu noppee dugg na fi ab diir daal di génn mag ñi fi nekkoon mu ne yéen waa Ndofane maa ngi leen di digal lépp lu ngeen di fas yi ko fii kon sëñ Modou Mbacke ñu ngi lay wax ne fii nga toog tey sëñ Basiru toog na fi digal ñu ne lu ñuy fas lu ne nañ ko fasee fii kon ci biir pas-pas boobu yàlla yàlla suñu borom ba may la ci tawféex ba lépp loo fas yéene ci koraan bi yàlla defal la ko saa nu baati na di la yëgal ne sëñ bi def na fi ay secret yoo xam ne taxaw suuf si rek tibb ci sax ñaan si soxla yàlla mën na koo faj ndax sëñ bi moo ñu ko wax kon ñu ngi sant bu baax di gërëm di gërëm mbooloo mépp nag mën a mën a sula tudd ku ay tur di wax dara waaye ñu ngi sant képp koo xam ne kii rek saw ñaq dem na ci teeru bii ndax kat wax dëgg yàlla suñu bokk ñu jàppale jàppale gi ñu jàppale moo tax dara manqué wu fi mbooloo mi ni biñ ko déggee ñëpp ci sawar gis ngeen ni jigéen ñi toogee gis nga ni góor ñi toogee gis ngeen lépp kon ñu ngi ñaan lool yi yàlla yàlla suñu borom ba nangul ñu ko ku fi ñëw ku ne soxla soo am yàlla yàlla suñu borom fajal la ko ku fi indi jàngoro yàlla yàlla suñu borom ba wéral ko ci bakk suñu tubaab sant nañ bu baax gërëm nañ bu baax suñ maam Balla sant na mbooloo mépp sant na euh, délégation bi nga xam ne euh, caravane bi sant na leen sant mboo sant mbooloo mi nga xam ne ñoo ñëw aysi ko teerule ko ganam ñii gan ñu nag gan ñu mag ngeen ñoo xam ne ñii ku leen xam de xamul leen waaye ku leen xam-xam ne ñu mag ngeen sëñ Mourou Mbacke si mii kilifa la goo xam ne gii ah sëñ Tuubaa teg na ay mbokk ay ay waajuram loxo ndax suñu mënu xëy di si suñu Malick Basine ñooñu Mahmatar Penda si mooy seen waajur moo leen joxoon seen tubaa ne leen yéen ñaar ñii Modou Mbacke mooy borom jamono jox naa leen ko ngir dem ànd ak moom man mi su ma nekkee murit loolu moo tax ca la sama maam dégg sëñ xaali mbenn loo dem jébbalu ji bu bu may nekk tey murit sëñ Modou Mbacke si maam ma tax ma nekk murit kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax ne fekk nga fa sa sa waa kër di la wax ne dëkk bii sa waa jur wa sëñ Moustapha am na fi ay taalibe xam nga ci dara daa nga fi ñëw ñëwati fi ñëwati dem kër njógu ñëw feneen ko dem nga fa kon sëñ bi jërëjëf yàgg say rak ak say taalibe ak ñu ngi àndal ñëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wax suñu Tuubaa euh, yoon yàlla yàlla suñu borom ba saisu ku guy dem jàmm dikk ak jàmm li ngeen bëgg yàlla dafa leen saa nu bàtti naan wax suñu Tuubaa tubaab jërë ngeen jëf taw bi ndàpp ñu ci diggante bi moo ñu tax a guddee waaye buñ sañoon bëccëg dañuy ñëw Ndofane ndax loolu lañ leen waxoon waaye liggéey bi moo bari ku war a def fukki juróom fukki dëkk ak ñett ci fukki fan ak benn loolu métti na waaye nag Serigne Touba jar na ko am rek loo xam ne da dañu Serigne bi sa waajur dañu ko sant ci yow muy Cheikh Mouhamadou Bachir. ibnu Cheikh Abdul Xaadir dafa wax ne la cinq ci weer wii di ñëw dana dana ànd ak comité d'organisation bu màggalu Touba gépp ñëw Kaolack mbooleem sëti Serigne Touba yi ñu mën a ñëw danañ ñëw mu wax nag ne bis boobu la bëgg mbooleem li wër Kaolack diggante Ndofaan ñooro ñi mën a dem ñépp ñu maasa daje fa ndax màggalu Touba mooy fête indépendance murit te nit buy def fête indépendance am day génne ay jumtukaayam armée bi day défilé élèves yi di défilé anciens combattants yi di défilé lu ne di défilé kon bu ñu àggalee ci bis bi nga xam ne ci la Sénégal am indépendance mooy ci la nit ku ñuul moome boppam muy bis bi Serigne Touba liggéeyal yàlla ba dellusiwaat ñu di ko feete tam digle woon ko ñu di ko waajal Serigne Bachirou nee na bu sañoon dana gis mobilisation boo xam ne àdduna bépp danañ xam ne mm, sëñ Touba moo réew mi sëñ Touba it moo moom mi loolu moo tax sëriñ bi ne woon naa yëkkati sama kàddu ndax conférence bi sëriñ Fallou si moo ko war a def. te dana leen andil lu leen doy sëkk dunde ci sëñ Touba ginnaaw bu leen ko sëriñ bi joxe sëriñ Mambala nag yow ñoo ngi lay sant ndax sa waajur wa Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir liggéeyal na lislaam liggéey boo xam ne su ko ko yàlla fayee doomam dootu tumuranke ci àdduna ab taareem lim sax dootu tumuranke ndax dundam jëpp jaay na ko sëñ Touba benn baat képp doy na ci sëñ mustafaa moom Cheikh Mamadou Bachir mooy ku fi nekkalati sëñ tubaa ñu lay wax sëñ tubaa diw ci làmmiñam la bàyyi ko ci moom lañ njëkk a dégg muy wax sëñ tubaa Cheikh Abdoul Ahad kon nag yàlla def ko muy nit koo xam ne xam na àdduna samp la fii waa dëkk bi maase wan ne yaa fii seenum sëñ Touba tamay dëgg loolu ñu ngi lay ñaanal yàlla yàgg samaam sàmm la kon dañuy bàyyee kàddu gi sëriñ Falilu euh, Cheikh Mahamadul Bachir it ni ko sëriñ Modou Mbacke waxee ndigal lim lay jox mi nga xamal ne bàyyi ko wut ci moom ci sëñ Touba Cheikh Sidi El Mokhtar la bàyyi ko guddi tey jii boo demee fa moom dana yëg ne bu fekkee ne nekkut di ko dégg ndax rajo yaa ngi koy def direct yëg na ne ñoo ngi Ndofane sëñ Sidi Mokhtar yëg na ne tey ñoo ngi Ndofane ndax gisal na boppam itinéraire karawaan bi xam dëkk yi jëm ba noppi yebal doomam mu di ko topp guddi gu ne muy laaj fuñ fanaan ak fuñ yendu ñëw Kaolack gi it moo moom la ñor ba àgg ci lool mu ne bu karawaan bi defee ndax fii ñu toll di def karawaan bi ñoom ña nga ndakaaru di def forom bi dem nañ Mbambilor te buñ tuddee Mbambilor ñëpp seenum xel dem ci sëñ Fallou. bi ñu liggéey jumaay Touba ña nga ña nga Masaalik Kaolack lañ war a jëm si waat ñu ne dañuy lëkkale région Fatick ak bu saalum dajale leen Kaolack ñépp daje fi ñu waaje fi màggalu tubaa nag pour wuti Touba loolu ndigal sëñ tubaa Cheikh Sidi El Mokhtar moo ko ko jox moo tax sëriñ bi nee na kenn des la la la gën a gàtt mooy dañuy wax ne màggalu tubaa ñu naan 6 million de personnes ñooy ñëw Touba sëñ Cheikh Mouhamadul Bassir daa wax ne daa bëgg juróomi million ngi personne daje Kaolack moom ba noppi juróomi million ngi nit daje Kaolack ñu soog a waajal jëm Touba kon sëriñ Falilou ma bàyyi la ak murit yi ñu taatan seeni xol ngir dundaat ci sëriñ Touba alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi dawi ridwani wa tamkin mbokki jullit yi ak sëriñ Faadilu Silla mi nga xam ne taxawaayam ci Cheikh Ahmadou Bamba ñu bari yëg nañ loola bu ñuy wax Cheikh Mouhamadul Fadil si di doomi sëriñ Mouhamadou Mbàkke si ak murit bii di am yéene jokkalante yéen ay kàddu muy Mouhamadul Fadil ibnu Asayix Mouhamad Xadisi ibnu Sayix Malick Bachir Sy ak presse bi nga xam ne ñoom lañ àndal sëriñ bi nag di leen nuyu ci turu Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke xalifa général des Mourides di ñaan suñu borom mu yàggal ko fii te wéral ko di ñaanal suñu borom mu may mu yàggal ko fii te wéral ko balim naal ci liggéeyal si Ahmad Bamba lépp yàlla yeggale ko ci jàmm te ñu ànd ko ak moom ak ci turu jëwriñam yu tedd yooyee muy asayix Muhammadinil Muntaqa ibn asayix Muhammadinil Bashir di jëwriñ ju mat jëwriñ ak cheikh Mouhamadinil Bachir ibn Asayikh Abdul Xaadir Mbàkke mi nga xam ne kilifa gu tedd gi li mu wax ci moom jëfe ko ci moom àddina bépp teg nañ ci seen bët muy ay loxoom di ay tànkam di ay gëtam di leen nuyu itam ci turu sëriñ Abdul Ahad Mbàkke Gaynde Fatma mi nga xam ne liggéey bii ci loxoom la tege mu jànkoonte ci ak coono yu bari ànd ko ak sëriñ Mouhamadou Mbacke si mii ak ñi mu ko àndal nga xam ne am na benn bis boo xam ne sëñ Abdul Ahad Mbacke ci liggéey bii bu ñu leen nettalee coono yi nga xam ne moom la ci daj ak moom li ñu ci daj moom lañ ci lañ cee jublu ngir ndokkeel leen ngir yendu gi ngeen yendu di ñu xaar ba nëgëni am na bis boo xam ne Cheikh Abdul Ahad Mbacke Gaynde Fatma ak sëriñ Mouhamadou Mbacke si mii ak mbooleem ñi mu àndal sëriñ Xaari Jaxate sëriñ Fadulu si si këram lañ jullee tàkkusaan fa lañ jullee timis fa lañ jullee gee te une guddi fa lañu fekk lépp ngir liggéey si Ahmadou Bamba bii kon yéen waa Ndofane ku toll ni doomi sëriñ Seex Gaynde Fatma bu amee courage bu toll noonu ci liggéey si Ahmadou Bamba yéen tamit ngeen yëg ne seen coono bi ngeen yendoo yëg nañ ko waaye kon day yéeg ci liggéey boobu rek kon sëriñ Maam Balla sëriñ bi mi ngi yëkkati nuyoo yooyu yëpp di ko teg ci sa loxo Cheikh Mouhamad sëriñ Maam Balla ibnu Cheikh Mouhamadul Moustapha Basir jàmbaar ju mat ju di jëwriñ ju am taxawaay ju am pas-pas ju am yitte ju bëgg si Ahmadou Bamba bëgg si Mouhamadinil Bachir kon sëriñ bi ñu ngi lay ndokkeel ci loolu li nga xam ne nag moo li tax a jox jóg karawaan bii mën nañ leen ko jë jëkka leeral insha allahu muy liggéey boo xam ne ku nekk xam na ne sëriñ Touba Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké bi muy door a yegsi ci jataay bi déclaration bi mu njëkk a def mooy benn la jullit ñi wax ne bëggatuma dégg diw tiijaan la xaadir la laayeen la murid la diw jullit la laa bëgg a dégg ñépp bennoo mu liggéey ci nag liggéey bu yéeme boo xam ne waxtaan wi ci ñaari tomb lañ ko bëgg a def insha allah benn bi day jëm ci bennoo jullit ñi ak naka la ko si Ahmadu Bamba dundee woon ak kilifa yim jamonoon teeloon bi ko ñaaree mooy lan mooy ak taalibe te juge bi léegi la ko sëriñ Maam Balla Mbàkke tudd lan mooy ak taalibe duma ko jaare ci mbind dama ko jaare ci pratique bi ci ñi àndoon si Ahmadu Bamba nan lañ dundee woon ak murid kon defe naa ne ko am pas-pas ba jaar ca ñooña seen cër yi saa boo si jotee rek soxal mën a sedd guy bu ma fàttewul siis bi lii yaa ci laa bëgg a def ñaari waxtaan bala ñuy jàll bëgg naa itam ab sëriñ la bu yaatu boo xam ne kilifa gi tawfiq ju rëy la yéen waa Ndofane yéen a ko am jaaree ko ci sëriñ maam Balla Mbàkke mii ci muy lu yéeme liñ ci njëkk a def mooy déclaration ci Ahmadou Bamba laa leen bëgg a njëkk a leeral déclaration ci Ahmadou Bamba ci jamonoy colonial yi booba nga xam ne ay Ahmadou Sayxoog Samori Touré Ahmadou Aminata Lat Joor rek képp ku yëkkati sa loxo rek tubaab bi damm loxoom ba ñuy mbooloo réew mi taxaw ci làmbi golo ku jóg daanu golo yaa ko moom loxo yépp ñii ñu sànk leen kilifa yu tedd yu baax yu yàgg ci ci yàlla dayo bu ne ku yëkkati sa loxo ci lislaam wane bu wér ne yow jullit xàqan nga lu dul lislaam amoo ca defar amoo ca yàq Cheikh Saalih ci wax na ko fii ci kanam bindee waaye am na jamono colonial lu jafe woon a wax la jamono boobu ci la si Ahmadu Bamba yëkkati loxoom ca kaw def grand déclaration jëme ko ci ñépp wane kan mooy si Ahmadu Bamba lan mooy ay jikkoom wane itam ci lan lan mooy am mbiram ak it fan mooy objectif am fan la si Ahmadu Bamba jëm lii rek moo ko lëkkale ak noon yi yëpp lii mbindum loxoom la danaa leen jàngal déclaration bii si Ahmadu Bamba sëri ci la yéen waa Ndofane yéen a ko am ci la jaaree nag dem ci mbooleem monde bi ñu xam si Ahmadu Bamba dëgg dëgg dëgg xam si Ahmadu Bamba moo bind ni ma nii laa mel kii laa doon fii laa jëm kenn mënu ma fàttee yegg wan naa leen a de mbindum loxoom la lii rek ngeen ko gisan tasaaroo seen seen suñu giru giiru dund jaroon na lii laa wax giiru dund jaroon na ñëw fii tey ron sëñ maam Balla dend ak moom ba gis mbindum si Ahmadou Bamba mii mbindum si Ahmadou Bamba sëriñ lii na ko moom bi mu jaaree ci jamono Cheikh Samba Ka ñu fekk ko sëriñ Cheikh Ka mu wax sëriñ Mouhamadou Mbacke si mii ne taw bii nga gis si Ahmadou Bamba moo ko def mu ne taw bii nga gis si Ahmadou Bamba moo ko def seen yoon wii la kon mbindum si Ahmadou Bamba laa leen bëgg a wan ngeen gis ko yéen ñëpp bu ko defee ñu wax leen déclaration bi nag ngeen xam ne ki ñu am ñu xam ki ñu am kan la borom fit la woon borom jom la woon borom engagement la woon kon ñeneen ñooy tayle woon te dëggu muy wax ne bismillahi rrahmani kulli man lam ya'lam bi amri kaatibi hadihi alxurufi salaamun laayiqun bihi mi ngi jógee ci jaam bu tedd muy si Ahmad Bamba muy déclaration ba muy jëmee ci képp koo xam ne kii dangay laaj mbiram si Ahmadu Bamba te xamoo déclaration bii waajal te séntu te si Ahmadu Bamba mi sa kaw mu wax ne ginnaaw nuyoo boobu képp ku mën a doon te am kumpa si Ahmadu Bamba si Ahmadu Bamba nee na mi leen nuyu nuyoo bi yàlla si yow xaw ma nag ban moo yàlla si yow waaye ki ngi mu nuyoo bi yàlla si yow daal mi ngi lay nuyu muy wax fa inna ku ne xam na ne faa xarfu sababiya la li sabab may bind leetar bii mooy faa bi faa bi képp li muy firi mooy li sabab may bind leetar bii li tax may bind leetar bii mooy kàccoor yi taxaw di bëgg daane lislaam ji na xarfu taw tawkiid la day tekkale na li muy wax lu wóor céng la lu mu gëm la dara mënu ko see génne mu wax ne fay nakaatiba haadihi lxurufi lam yazlami llaaha tabaraka wa taala kon ñun ñu ànd Cheikh Ahmadou Bamba nan ci jànge bu baax Cheikh Ahmadou Bamba nee na kiy bind araf yii day moom mës la tooñ boroomam tabaraka kon ñun murid yi ñu déggee ci ne Cheikh Ahmadou Bamba du ab tooñkat kon ñun ñëpp war nañ ko mën a roy ci wattandi ko ab tooñ tooñ googu nag zaahir la ak baatin Cheikh Ahmad Bamba nee na mësu tooñ boromam ci zaahir mësu tooñ ci baatin mësu tooñ ci liñ xam mësu tooñ ci luñ xamut moo tax mu wax ne lam yan xonii zajrun wala waxiidu wa humri ilal jinaani iidu mu ne bul ko defati ak lu boo boo ko defatee ma def la nangam Cheikh Ahmad Bamba nee na mësuma cee jaar nee na diiru muy dund suñu borom mosu ko wax ne ko nangam mosu ko wax ne ko boo defee nangam ma def la nangam lu yéeme ngi noonu benn mi def ñi moo ko wax lam yan xonii zajurun wala waxiidu loolu soriwul 1900 bi mu koy baamu soriwul ci mujjug dund ci mujjug njaareem gi la mu wax ne li des kay mooy waxumuri ilal jinaani iidu di des ci sama dund ba àjjana lépp feet la gis nga yoonu murid bi bis bu yàlla sàkk rek événement la boo xam ne bii lépp a fay ne loolu si Ahmadu Bamba fàggoon bu yàgg moo tax ca booba la waxoon mag ña ne a ngi ci muqaddamatul jinaan yi bu àjjana doon kër man leen yéen a ngi ci ëtt bu njëkk bi loolu ci mi ngi dugg ci mës la tooñ boroomam mu teg ca ne walam yaslim rasulahu sallallahu taala alayhi wa sallama nee boroomam waaye mës la tooñ yonent bi sallallahu taala alayhi wa du ci zahir du ci baatin mu tegaat ci leen lu gën a yéeme mu ne walam yuwajjih ila ahadin bi awnillahi taala wa bi xormati rasulihi sallallahu taala alayhi wa baatilan mëndu xàq la Cheikh Ahmadou Bamba nee na bi ma xàmmee bi ma xàmmee te Cheikh Ahmadou Bamba ko teel a xàmmee la ko teel a xàmmee la boo ko tëgg gaañ la ko teel ràññee la mokkal na alxuraan ci lu yées ay juróom-ñaari at juróom-ñett kon ku ne xam ne ko teel xàmmee la nee na bi ma xàmmee ak léegi mësu maa yëkkati benn ñaawteef wala luy lor di ko jëme ci menn mbindeef du nit di junne du malaaka du maaw moo tax sëriñ Abibu Rasuul si ne ko setub sëriñ Tuuba lu daagu daagu kenn du ko naa sama ma tax ma laago yu bari dul ci xarit kenn moom rek kenn ku mos a laago te si amul bam ma tax na ngeen ma koy signalé gaaw mos a laago loo kenn gaa yi bari na denc nañ mu ne kon nag Seex Ahmadu Bamba ku leen laaj kan mooy Seex Ahmadu Bamba lan la séqoon ak boromam lan la séqoon ak yonent lan la Cheikh nag bindee fi nee ko si Ahmadu Bamba day suñ kilifa gu tedd googu yi mos la tooñ boromam mos la tooñ yonent bi mos def benn luy lor bindeef allah wallahu yansuru nii wal xalqu tatbau nii fil barri wal bahri daa nafin bila darari ba bëgg gis saa nafin bila darari jàppal ci Ahmadu Bamba ba bëgg gis ko xam lu ne am lu ne man lu ne jàppal ci Ahmadu Bamba rek sëñ maa ngi si daana wax ne lu waay gàtt gàttum xel xam ne sëñ Bàmba yor na daal dara sëñ Bàmba joojee ku si ko bëgg rek moo koy gis moo tax mu wax ne waxaada lii axraadiya zaadan li daaril karami mboolem li bindee si di bëgg àddina ak alaaxira yiwu àddina ak yiwu alaaxira la si amul Bàmba wax ne sama teem lu tuuti lii ci la ko suñu borom teg mu ne ngir lan mu ne ko argent de la rek de ba dem àjjana yaa saw ñooñ dara feeñu ci moo tax sëñ Moussa Ka ne la mbanaga laalaguñ ko junniy ñay la si Moussa Ka ne ne Cheikh Bamba ne mosala lii mos la mbanaga guñ ko junniy ñay la lu ngeen gis ci àddina rek ak gëtt la gu xeeñ ci li si Ahmad Bamba lu ngeen fi gis rek moo tax mu ne Cheikh Bamba ne mosaale leen lii mos la mbanaga laala ko junniy ñay la yàlla nañ bokk bañ koy fekkee ba tey maa ngi ci leetaram bi mu wax ne nag fal yawma yuridu an yunabbiha kulla man lam yaalam bi amrihi tanbihan laa yakunu baadahu sakkun mu ne bis ni am naa pas-pasu yéene xamal képp koo xam ne kii réer na sama mbir man si Ahmadou Bamba danaa ko yee ci leetar bii déclaration bii yee yeewu goo xam ne kii bu déggee lii ma wax te jàpp ko doota amati lenn lu muy sikki sàkk ci man si Ahmadou Bamba mu ne ana loola mooy si Ahmadou Bamba mu ne allahu tabaraka wa rabbi wa sayidina muhammadin sallallahu wa sallama wa rasuli wa wasilati wa taala wal qur'anu dalili wa hudaaya wal islaamu diini wal kaabatu qiblati wallaahu ala ma naqulu wakiilun te lii ma wax suñu borom ci la ànd kon kooku mooy amul bàmba foofu la féete woon ma laal tuuti ci ak bennoo ak nan la ko si Ahmadu Bamba dundee day wane nag relation bu mag bu dox ci digganteem ak kilifa yu mag yi bu ñëwee nag tuuti rek mu baasaratan ñu may ma ndax Cheikh Sidi Moukhtar benn jullit ñi daf ko yitteel te muy lu si Ahmadu Bamba sosoon muy dox ba mu yegsi ci loxoom mu def ci déclaration boo xam ne bii kenn xamul ren mboolem waa adduna bi fu fi julli nekk ñoo bokkandoo jullee doo Sénégal da doon jéem a benneeloo julli ñu la waxoon ñu benneeloo lii ko yàlla may kenn mësugul ko ko may ren jullit yépp a julli ñoo jullee ndoo tabaski ñoo jullee ndoo koy ci daraja Cheikh Sidil Muxtaar yàlla moo ko ko defoon moo tax Serigne Touba Serigne Moussa Ka ne wax si am Bamba ne ko foo jublu yàlla jublu foofa mbër ma foo jublu yàlla jublu foofa mbir ma foo dëgg yàlla sotti ma fa mer ma Seexul Bàmba moom fu mu jëm rek fa la lépp jëm fu safaan moom safaan rek moo fay jëm ñu tàmbali bëgg a wax ne mënees na cee cité Alaaji Omar Fouti Tall 1853 Seexul Bàmba Seex Omar Fouti Tall ñëw na Mbàkke Bawal ngir lan leeru si Ahmadou Bamba kooku mooy bu jiitu ba mu ñëwee koy gàttal ba mu nuyoo sa sa alaaji sëñ sëñ sëñ Maamor Anta Sali ne ko yow yaay waajur si Ahmadou Bamba te boobu sëriñ bi ganeegul àddina ci même Almira 1853 tolloog Amou Sa Amou Amou Sarahi ba ma ba maam ba maam soxna bu su ñëwee siyaare ko daf ko ne yow mii yow yaay doon waajuram. waaye ren lay gane àddina relation boobu yi mooy dox ba suñ jëmi jamono tey boo ñëwee ci Cheikh Sidi Hadji Malick ku ne xam na ne maam Alaaji Malick ak Cheikh Ahmadou Bamba ñoom ñaar ñëpp ay sëti maam Maharam Mbàkke lañ maam Maharam moo meññi maam Balla Aysa mu meññi maam Mor Anta Sali mu meññi Cheikh Ahmadou Bamba maam Maharam moom meññi ci maam Cerno Farimata mu meññi maam Mati Mbàkke mu meññi maam Ousmane si mu meññi alaaji Seydi Hadji Malick moo tax seen jëflante ba rafet boobee si Ahmadu Bamba fekke na ko ba ngaay ba gaaya si Ahmadu Bamba dem na fa ñu jëflante ci fànn yu bari waaye am na ci boo xam ne moom laa koy indee addiye joo xam ne Cheikh Seydi Hadji Malick moo ko jëloon muy ab kaamil mu yónni ko maam rawaan maam ngom boole ko ñaari bayit waaye ku si Ahmadu Bamba ne ko hadiyatun mujibuha tilaabu mahabbatan yaa ayyuhal hubaabu adama rabbuna lana hablal wisaal wa kuffana zarra alladi aada wasaal Cheikh Sidi Hadji Malick moo yónnee si Ahmadu Bamba hadiya boole ci ab kaamil jox ko ñaari bayit waay ko ko ne ko sama addiya ji bëgg gu ma la bëgg rek moo tax ma ma yónnee la ko maa ngi ñaan ci daraje suñu borom tabaaraka wa taala bu mu kóllëre gi ak bu mu cofeel gi dox sama diggante ak yow yàlla na ko yàlla saxal ba faw loolu kan lii mooy li waral si Sidi Mokhtar woote woote mbii Cheikh Bamba tontu ko même baxru même abyaat yi la ko tontu moom i ñaari bayit te Cheikh Sidi Hadji Malick wax na ko ne ñu ngi ñaan nag yàlla mu saxal ñu buumu kóllëre googu ak cofeel googu ba ilal jannati lati waajal muttaquun te musal ñu ci ñi ñi ñi raye muy noon yi Seexul Bàmba tontu ko ñaari bayit ne ko jasaakumu xayral jasal wahaabu wa fi sifal widaadi laa tartaaboo mu ne ko yal na la suñu borom tabaaraka wa bi nga xam ne mooy mayaakon bi mu fay la ngën ji fay yow alaaji mari ci sa addiya ji nga ma jox man si Ahmadu Bamba mu ne ko fa kay fa laa fa kay fa laa naka lañu ñu a bañ a nekkee man ak yow di ay soppan ay ay soppi yu dëgg di ay buumi kóllëre di dox suñu diggante ak yow fa kay fa laa naka loolu di bañ a mën a nekkee wal mustafal mujaabu imaamuna wal xillu nag moom laa nahabu ku fi am fit woon mu ne ko naka la buumu cofeel gi di bañ bañ a doxee sama diggante ak yow te yónnent bi sallallahu alayhi wasallam di suñu imaam di suñu wasila di suñu lépp ñu bokk deret bokk yónnent bi bu mu kóllëre na sexeel xel dal day sax ba faw gis nga ni ko Seex Sidi Muxtaar yeesalee mm-hmm. kon murid yi ñu yëg dama bëgg rek leeral tuuti ci li sax sëriñ bi wax mu ne ko li ñuy wax rey nag moom ragaluñ ko moom yàlla rek lam yarxu nii waxtal jihaadil xawf la wax li ñuy wax ragal li ñuy wax rey mu ne moom ragaluma ko ragaluma ak ray ni mu ko mosloo woon bu ko defee itam loolu seqoon na ko ak alxaaji Abdullahi Ñas ba Seex Ahmadu Bamba joxoon ko tafsirul jalaalayni yàlla dogal suñu aadi ñas moo ma ko jox moo ma ko jox si aadi ñas yéen ñëpp xam ngeen ko suñu aadi ñas bi yàlla dogalee Serigne Touba joxoon ko tafsirul Jalaalayni boobu yàlla dogal xolam ba sedd ci guy mu digal Muhammadunil Xalifa ngir mu defal ko ay bayit ci Cheikh Ahmadou Bamba duma ca sori firndi rek laa leen di jox ci fi Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke teg tànkam door a ñëw nag ci nan la nga leen jàppee si Amadou bàmb ak taalu bi bu fekkee gisuma ko damay jàllaale ci Serigne Omar Kane Dingaraay Dingaraay ci kanam Serigne Omar Kane Dingaraay daa nuyu alaaji daa nuyu Seydal Haaji Omar Tall ca Mbàkke Bawol 1853 si yoonam woowu naka la ko nuyu Cheikh Omar Fuuti ne ko mawtuka hinda dingaraay yow dingaraay ngay faatoo ji Cheikh Omar kan dingaraay moomu nag ci fukki at ak juróom-ñaar ci Ahmad Bamba ci la am basiira ba yëg ne kii nosi bindeef yépp ci loxoom la tey mu wax ne ko inna quruna bila azimmatahum fi rahatayka fa yanqaadu ma an quuda hada li ahmada bamba kaana waaliduhu bahral hulumi namiral maayi mawruda laata si ahmad bamba di wax naan simaamu wara hasri si amar kan dingi ràññee na ko bu yàgg no si bindeef yëpp seekal yëpp ci kanam si borom sa loxo la ko teg loolu ak si amar kan dingi raay wax yow ahmadou bamba yow si ahmadou bamba boobu Sëriñ Tuubaa mi ngi ci fukki at ak juróom mu ne ko yow si Ahmadou Bamba no si bindeef yi ñu teg jinneeg malaaka seen ruu yépp ci sa tenq lii la ko suñu borom teg te booba sëriñ bi mi ngi ci fukki at ak juróom-ñaar mu ne bi mu ko si tegee ba noppi dafa mel ni dañeen a joon jiital dañ koo nangu nangu gu rafet ñenn ñi yàlla tàggat bi mu ci noppee Cheikh Ahmadou Bamba tontu ko ñaari bëy te boobu Cheikh Ahmadou Bamba mi ci fukki at ak juróom-ñaar Cheikh Ahmadou Bamba ko xarrat liyal ayna niltul yawma maqsuuda izara man siluna il firni daawuda jërëjëf lépp xol bu sa dara rek kanam daal ak waaye daal mooy soxla si bi nekk jar si si Tuubaa ay euh, ku cosaanoo ci sëriñ Malick Bassine si sooy wax ci sëriñ Tuubaa sa ronkoñ war naa mën a sotteeku rawatina nag fi ngay waxee ci sëñ Tuubaa moo mat a dégg bayit yi muy jàng sëriñ Omar Kan dingaraay di ko wax booba moom mag la waaye ki muy waxal booba gone la gu toll ci fukki at ak juróom fi mu toll ci naxu fi ko sëñ Touba di tontoo déggu sëriñ Touba ak xam-xamam daa ëpp ay atam te sëriñ bi yàlla nañ ko yàlla fayal dañ koo am te xamuñu ko dañ koo am te xamuñu ko sëñ Fallou leeral na lu yéeme ci ku ku am xam-xam te déglu wax ji Cheikh Omar Foutiyou ma nga bàyyi ko alwaar alwaar mi ngi ci jolof ci fuuta dem nañ fa bi muy wër leeruk sëriñ Touba nee na ci alxuraan la ko xool defe na màkka la mu dem màkkatal mukarrama nee wër barabi ijaas yépp ba mu jeex gi leeru sëñ Tuubaa gi féetewaat ko soow mu toppaat soow bi di ko wër di wër senegal ba ñëw Mbàkke Bawal bis bi mu ñëwee Mbàkke Bawal dafa dafa dafa ne ca wetu teen ba di waaja wut ndox dal fa soxna jaaratullahi Mariama bu sa mu sell ma romb ko jëm ca teen ba duy ndox dikk jox ko ko ba noppi wan ko ginnaaw Cheikh Omar Fuuti yu naan ca ndox ma duy ca mbuusam na ko fan nga jógee mu ne ko ci kër gi mu ne ko yóbbu ma fa Cheikh Omar Fuuti yu jiitu soxna jaara topp ci ginnaawam ndax booba nanguwul jigéen joo xam ne du sa mbo du sa soxna dina ci sa kanam soxna jaara ca ginnaaw la des jiital ko boo waree jàdd mu ne ko jëmal ci càmmoñ jëmal di joor ba mu dugg ci biir kër ga mu dajale magi mbàkki ñépp na leen dafa am leer gu ma leer googu nag gis naa ko fii lii ngeen yend ci man xam leen ne kii xettali jaam ñi tey ak ëllëg mi ngi ci seen biir gis naa ko nag mu so ci jëpp gone gu jigéen gu tuuti gële muy soxna Mariama Bousso daal di ne sëñ Mbàkke Mor Anta kooku bu feeñee na nga xàmmi ci moom ay màndarga bés boo xam ne xàmmi na tàmbali naa xàmmi wala xàmmeegut da nga yëg ne wuute na ak ña fa nekkoon soxna jaara nee na kero bi sëriñ Touba feeñee jamono am juróom benn weer képp wax nañ ma xewu jigéen mu boot sëriñ Touba ci ginnaawam war a dem ci xew wa ba demee ba àgg ci xew wa fekk ñuy def yëfi jigéen sëriñ Touba moo yëngutu ci mbootu mi fab ñaari loxoom teg ci mbaggum soxna jaara ku ba tuum leen na leen tuub ba muy ñetti yoon soxna jaara xam na kii ne kii mu boot moo ko wax mu delloo waat ko ci ginnaawam ndànk ba mu demee ba amaat lu mel noona mu war caa dem te bëggul sëñ Mbàkke Mor Anta Sali xam ne doomam ji wax na ma ne kero ba yonent yàlla Isa feeñee jamono wax Sëriñ Tuubaa gàcceel na ko ngir yàgg bañam lu bon bi soxna jaara waree delluwaat ci loolu amul jaaxle bi mu génnee ci buntu kër bi sëñ Tuubaa da ko ne pëkk pëkk na ko bul ci jaaxle tekki ma teg ma ca taatu garab gee muur ma mu ngeer njàmbaaru si Ahmadu Bamba rek lañ ciy wane ak jikkoom ju tedd ji di nga xam ne moom la seq ak bindeef yi yépp relation yi bu ñëwee ba ci wàcc si danañu ko wax li waral noonu ko sëñ Fadil waxee ci foofu sax am na tuuti lu fi des mooy si Omar si Alaaji Omar Fouti Tall biñ ko dal ne ci néeg soxna Astu Mbàkke fekk soxna si génnoon demoon Tayba ndawee bi soxna si duggee ñëwee nag nit kuy dugg si néegam day habitude bañ a bañ a nuyoo bi mu ne bañaa si néeg bi si Omar Fouti Tall daal yuuxu mbëkk permi daal daw mbooloo mi topp ko ba ci xurwa mu daanu ñu di ko bés ba mu xiqi mu dellu si ne faaw soxna si ñu caw ko yari yoon ngir jàmbur bu jigéen di fekk jàmbur bu góor ci am néeg te gan lañu dalal ko ci néeg soxna si soxna si ñëw na xamul ne ala ama foti laa mi ci néeg bi foofee mu daanu woon fala suñ ngir kilifa ku tedd gii suñ yaakaar yi àddina ak àllaaxira si Ahmadou Bamba foofee la feeñee jamono ci Mbàkke Bawol boo boo jëmee boo jógee Mbàkke Bawol jëm Tuubaa sa ndeyjoor du sori ñeent fukki mètre fa Cheikh Ahmad Fouti daanu woon ñu bës ko ba mu xiqi ngir doon daw lu bon fa la Cheikh Ahmad Bamba feeñee seetlu tàmbali na xaat mu ñëw ci xaamu sarayin sarayin mooy mille deux cent soixante-dix boo ko jiitalee it mooy xaalis rek sarayin mooy xaalis rek tàmbali na wuuteeg bindee fi xaar ni ko ko waxee woon Cheikh Ahmad Bamba doonoon ku ubbeeku ci lépp jëflante woon ak Alaaji Ablaay Ñas joxoon ko tafsirul jalaalayni Alaaji Alaaji Ablaay Ñas nag xoolam sedd ca taawam ba Muhammadunil Xalifa la waxoon ne ko wayal Masi Ahmadu Bamba dama sori ca way ya waaye bay benn bay laa si indi bay jaa ngi nii ndax damaa bëgg dem ci lan mooy ak teelu bi ndax mooy li nga xam ne dama bëgg rek leeral li tax Cheikh Sidi Muxtaar di wax daa njël benoo aska salaamin ka taami sohdi bir ruuxi yanuubu anna wisaala raaxi bir raaxi loolu la koy ba ci biir mu ne ko sayxun si Ahmad Bamba sayxun taqiyun naqiyun aylamun alamun lii rek doy na di sëkk si Ahmad Bamba mii may way ci turu Alaaji Abdoulaye Niass moom day sàng bu tedd ku ragal yàlla la woon ci anam yépp ku set la woon ci wàll yépp ci zaahir ak ci baatin ci jikko ak ci lépp mu ne kuñ xam la woon ñépp a ko xamoon loolu ci la demoon ba way ko way mi bari ca biir mi naan huwal jalaalaani tafsirun liman sibukum misbaahu ilmin ka daw i subhi lammaahi lii la si Ahmadu Bamba séqoon ak kilifa yi réew mi bu dee sëriñ jaamal moom am na ñeenti at yu mat sëkk ci kër Maam Mor bi Sali di jàng xam-xam sëñ Moussa Cissé bu Pire moom ma ko nettali nee na ma li ëpp ci njàngum xam-xam ci wàllu senegal ci Maam Mor la ko jàngee ñeenti at yu mat sëkk boobee nee na soxna Anta Ndiaye Mbacke moo nekkoon nday daaraam moo tax bi muy bi bis bi muy dem sëriñ Maam Mor Anta Sali ko maam Cheikh Anta mu dem ndax ab diggante bi muy dem gànnaar nag la ko dellu si bu dee ci Cheikh Sadibou ni waa ni waa niim Sadi kooku moom Cheikh Saadou Abihi lu ne wax na ko Cheikh Ahmadou Bamba daanaka ay diiwaan la relation yi moo tax sëriñ bi di wax waaye danaa ci indi wenn bayit ndax bari na mi ngi wax ci biir ne wa badrun muniirun xaaba fil xarbi tumma laa xamil xarbi samsan rifaatan wa intisaara mu ne Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Saadibu mooy wax Cheikh Ahmadou Cheikh Saadibu abihi mu ne Cheikh Ahmadou de muy dem ci géej gi dafa meloon ni aw weer waaye bi mu de tëll ci sow bi ci ci géeju Dakar gi 11 dafa mel ni ab jant bu tiim ñëpp tasaaroo ci àddina bi te lii ci ko seere lañu war a xam kan la muy Cheikh Saadu abihi bu dee ci xaaj yi ma jaxate kala dama koy gàttal moom may wax naan min nii li Ahmada Bamba taarikan naasi xayral ilal ilaahi fa am saa sayyidan naasi loolu moom it moom la wax kon ñu yëg ne daal si Ahmadu Bamba réew mépp ak jullit ñëpp ak fu maane la séqaloon ay relation ay yu kon bu ñu ñëw tey dañuy jéem a wàcc ci fàttali ko lan mooy acteur bi lan mooy acteur bi Cheikh Ahmadou Bamba bind na ko waaye daa wax melo sifaat sifaatu saadiqil muridi bi ixtisaar la wax de daanee taalibi ñi lay mel waaye xam ngeen ak taalibi mooy lan dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ak taalibi luy buuf luy buuf ci xol la di dëbaka daal maa ko wax leneen melaw taalibi la waaye lan mooy ak taalibi ak la di dëbaka daal ak taalibi la boo ko bëggee xam jërul ngay dellu ci mbind yi dangay xool doomi si Ahmadu Bàmba yi way laa nga xool ñi si Ahmadu Bàmba yaroon ku la sa neex mën nga koo jël ma bëgg a tàmbalee ci Cheikh Ibrahima Fall ak Cheikh Ahmadu Bàmba lu mot a dégg la bi yàlla doole muy wër Cheikh Ahmadu Bàmba ba fekk ko Mbàkke Kajoor ànd na ñoom suñ Modu Mbàkke si mii ba ci barab ba mu jébbuloo ak karawaan bi ñëpp ba muy dem ba gisee Cheikh Ahmadu Bàmba def ko ne damaa topp tànku boroom ba sosi fii ci yow daf kenn damaa topp tànk suñu boroom bam sosi fii ci yow léegi nag damaa fas a jaayante ak yow ma bëgg laa xamal ne man de kii sëriñ bi nga xam ne moom lay moom laay wër bu ma amutoon ci moom lenn lu dul ne fii mooy ab ab ab xabroom fii mooy barabam li ma bëgg ci suñu borom ko mën a am Cheikh Ahmadou Bamba ne ko Cheikh Ahmadou Bamba ne ko man de bu fekkonte ne wóor na ma ne asamaan si moo tiimoon yonent bi sallallahu alayhi wa suuf sii ci la yonent doon dox rek doy na ma li ma bëgg lépp danaa ko mën a am kon da ngeen di xool ñaari ñaari pas-pas yooyu sama baat day sonn ah waaw bu ko defee kon loolu manes na ko see bàyyi xel ñu yëg ne xoolal li Cheikh Ibrahima Fall wax mu wax ne ki may wër man sëriñ bi nga xam ne moom laay wër su ma ci amul woon lenn lu dul ne fii mooy ab xabroom fi lañ ko denc loolu dong dana ma doy sëkk li ma bëgg sama borom lépp danaa ko mën a am Cheikh Ahmadou Bamba ne ko waaw damay baamu kàddu gi Cheikh Ibrahima Fall bi muy jaayante si Ahmad Bamba ci Mbàkke Kajoor bi muy jataayu si Ahmad Bamba def ko ne dama wër tànki suñu boroom ba mu fii ci kër gi dama koo topp bam mu sama ci yow te man de ki nga xam ne moom laay wër sëriñ bi nga xam ne moom laay wër su ma ci amutoon lenn lu mooy fii mooy ab bàmmeelam fii lañ ko denc rek li ma bëgg ci moom lépp danaa ko mën a am sama pas-pas dana ma may li ma bëgg ci moom lépp danaa ko mën a am Cheikh Ahmadou Bamba ne ko man itam day bu fekkee bu ma wóoree asamaan sii moo doon tiim yonente bi sallallahu alayhi wa suuf sii mooy si yonente bi sallallahu alayhi wa doon doon doon doon doggi ak tànk mu tedd boobee loolu rek doy ma barkeelu li ma bëgg lépp danaa ko mën a am ñu xool pas-pas yooyu day tekkale day tekkale ak taalibe ak doole si Ahmadou Bamba damay bëgg yaatal tuuti ngir ñu mën si xamee bàmba si Ahmadou Bamba sëriñ wanaar bi muy ñëw di jaayante si Ahmadou Bamba si Ahmadou Bamba dafa ne jàpp loxo si Ahmadou Bamba ne ko wàlli noo tudd mu ne mu ne ko Sëriñ Tuubaa ne ko wàllu yu sekk mu ne ko wàllu yu sekk mu ne ko wàllu yu sekk mu ne ko wàllu yu sekk mu ne ko wàllu yu sekk seelu yu sekk ne ko ah woowu tur de man xaw ma ko woon sama bopp Sëriñ Tuubaa ne ko sa juróom-ñaari cër yi ñoo ma xamal ne ma benn mësu see de mësu see mooy yàlla mu ne ko ah Mbàkke nu ko defee da kon yëguma ko loolu kon ci meraw taari bi lay jàngale mu ne ah Mbàkke buñ ko defee da kon yëguma ko benn kilifa ci wilaayatoom ñëw na jataayu si Ahmad Bamba di jaayante ak moom fa mu nekk ca kër ga dëkk ba mu jógee ñu di ko jëw biñ koy jëw mu ne mu ne innet daal di siggi si Ahmad Bamba ne ko defal sa xel ci li ngay def rek boo demee da nga leen ndab te fi mu jaayante fi muy sëgg di jaayante Serigne Touba dëkk ba mu nekk ñu di ko jëw wilaayatoom may na ko mu di ko dégg bi mu sëggee bi mu déggee jëy li jëw jëw yi ñu koy jëw nag mu ne bërit Sëriñ Tuubaa ne ko defal sa ci li ngay def rek boo demee da nga leen not mat na ko sëkk kilifa ma ngay xor-xoral waaye mat na ko kilifa ñu bari la si daane ci wàllu googu ku xool diggante mën naa ñu dañ na baal ndax dana ma xaw a jege sëriñ Mor Khady Sy manto manto manto baatin la la gane àdduna nee na di ko seetee ay góori yàlla nee góor yàlla gu mu dégg bu fa demee bu ko ko solalee rek mu mu ngor yel ko nee bi mu demee gànnaar moog suñu maari baasin jaayante si amul ba mu nee bi mu ko gisee ba solo ko mantu mi nee koo cëkk koo ngor sax jotu ko sëriñ bi noonu la tiimee woon bokk ak gaayam yépp ci loolu itam melaw ak muri si amul ba moo ko bind mu ne abdul iradati bi xawli saada tarkul muridi maa alayhi la aara lii ngeen def tey ci màndargaw melaw murid saarix ci la bokk ndax si Ahmadu Bamba nee na melaw murid saarix mooy nga bàyyi say aada jëm ci sa jëm ci suñu borom ak ak yonent bi ak si Ahmadu Bamba te kon lii ngeen def nii ànd si Maam lii ci melaw murid saarix la bokk loolu kon mooy li nga xam ne mën nañ see bàyyee xel ci sunu diggante ak sunu kilifa yi tey ñu bañ a dalal gan ndax gan yi bari na lool ku séddoo si Ahmadu Bamba amoo leneen loo soxla ci àddina ñu bàyyi ko xel yiw àddina ak yiw àllaaxira lépp ci loxo si Ahmadu Bamba sëñ Maari Basi daana wax ne lu waay gàtt gàttum xel xam ne si Ahmadu Bamba yor na dara daraam joojee ku ca bëgg tey laaj ku ko wet na ko laaj Cheikh Ibrahima Fall wala sëñ Ibrahima Diop Massar ak sëñ Daaru Assane ak gaa yu baax yooyu dana ko wóor ne si kon ganaaw ñun ay ndaw lañ nañ laxasaayu ànd ak si Ahmadu Bamba bu ñu dara tàqale si Ahmadu Bamba sëñ Balla Faali Jeng dafa nekkoon sëñ dafa joxoon sëñ Maari Basin sëñ Balla Faali da koo joxoon sëñ Abdou Jeng mu nekk fa ba ko ba war koo yeewi daal di ne boo demee nga wax na sëñ Balla Faali Jeng nekko ko Maari Basin si nee na bul gan li xew laa leen di bàyyi loo xel ba mu ñëwee wax ko ko ba noppi suñ mba suñ mbaale nekko jëg hee yow de doom li ma sa baay di wax xamoo lu mu xam nga lu ma jubla wax damaa jubla wax ni ma li si Ahmadu Bamba di wax ci man doy na ma si dool dara kon nag ñun li si Ahmadu Bamba indi liñ jëlee ci moom doy nañu sëkk buñ ci dool dara wasalaamu aleykum wa wa barakaatu nangu leen ñaan sama amin barke Borom Tuubaa amin amin yaa rabbal alamin